jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yeeg interne yi seetaan à travers TV la télévision de toutes les générations mbokk yeeg xarit yi dal leen ak ci jàmm ñoo ngi fii nga xam te ni moo di foire bi ba léegi fas yéene la wan leen lépp li nga xam si mooy xew ci foire bi waaye nag dama doxantu ba fa nga xam si moom la ñuy wax bergerie Xaali Mounir Diop ma daal fekk nga xam si moom la ñuy wax El Hadj dama koy nuyu rek saafonteeg moom daal di dugg ak moom ci biir waxtaan wi El maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay sant bu baax di la sant di la delloo njukkal bi ñu fi ñu waaw di Père Daouda nga xam ne tey jii nii lii rek fierté la ci ñun mag moo xamante ne bii na tey jii moom ngaa dem ba am repos mais nga bàyyi sa lépp topp say sët di leen wan fi càmm commencé woon ak fi mu jëmaat loolu nag aussi dañ ko ciy gërëm moo tax ñu jiital ñu yóbbu ci moom ñu ngi leen di fay tamit di leen dalal ci jàmm ci foire bi. gannaaw ba ñu la dalalee jàmm fekk la ci sa bergerie ñu bëggoon rek nga expliqué ñu. bergerie naka la tëddee. waaw bergerie lu mu tëddee rek mooy comme ni comme ni ñuy defee nii rek comme xar yi rek. mom bergerie mom euh, xari day melne li ngay dundé sa sa biir famille sa soxna rek ngam ngay dundé ak ñom ci lool rek ci lañ nek dal di ci góorgóorlu dal hmm. ma ngi la fekk nga téye ben mal bu am solo gon nag nga présenter ñu li nga xam si moom moo di xar ko défé ñu gëna dugg ci yaatal gi ak faram fàcce. waaw mal bi mom ya, dañuy sawul ci présenter parce que lim nek suñu gëtt rek taxul mais élevage yépp dañ ko bokk mom parce que fay am euh, rasu xal yo xam dañuy am luñuy jouer ci élevage surtout nak papam ñukay wax jackpot. kii moom doomu jakpot la euh, yaayam laal ci sang roi Bachir ak séeréer bi yëpp moo tax daal mu nekk maal boo xamante ni bii ne élevage yëpp ko bokk kenn rek moomu ko daal waaw. moom jakpot kii bi moom maal bi ban ban année la nekk yow. waaw maal bi nag presque bi mu amee ay deux mois yooyu ci laa ko jotee woon ko sama benn euh, grand frère bu baax bu ñuy wax euh, Kaba mu dëkk ba Tëngéej moom moo ma ko joxoon quoi fekk na boobu jakpot mi ngi ci moom. moom ñaata at la def si yow. waaw parce que mën naa ni def na ci man deux ans et quelque quoi. mu mel ni tamit mi ngi liggéey liggéey bu am solo ci bergerie. waaw waaw maal bi moom wax dëgg yàlla ah, mi ngi liggéey daal mi ngi liggéey. wóolu nga wóolu mi liggéey ci bergerie bi et puis mi ngi liggéey ci bit waaw waaw. Ah, mu mel ni loolu soo amee rek sa xool yi en tant que éleveur day sedd. waaw waaw parce que loolu loolu nag la ñuy daje loolu loolu ñuy wax élevage parce que élevage nekkul loo xam ne da nga koy yemal sa biir rek élevage partagé la waaw boo gisee ma lay wax léegi ci góor gi loolu mooy élevage partagé la. moo taxit il faut ñu liggéey ci jox ñeneen ñu liggéey quoi. mu mel ni ba léegi tamit maa ngi seen yeneen xar ñu jàllaat si yooyu nga présenté ñëw pour ñu gën a xam li nga xam si lépp mu ngi nekk fii ci bergerie bi di bergerie Khalil Mounirou Diop mu nekk na koo xam ne aussi day bay waram bu baax a baax ci li nga xam si moom moo di élevage bi bu ko defee rek ñu wanaat euh, mbokku téléspectateurs yeeg internautes yi euh, beneen xar bi nga xam si ni moom la fi yore bi bii naka la nga ñu koy mën a ci ban tur lay wuyoo waaw kii mi ngi mi ngi wuyoo maman ah, maa ngi sama dom bu jigéen quoi Wow, kooku sama yaay laa ko tuddee moom ñaata ñaata kilo tool ñaata moom mi ngi ci deux mois mi ngi ci deux mois waaw mi ngi ci deux mois doomu mbal waaw doomu maal bi la quoi moom tamit si doomu sëtu jakpat la waaw doomu xaali la quoi waaw euh, moom tamit maa ngi seenaat beneen léegi ba léegi beneen xar aussi bu bu yanj bi macha allah euh, ñu ñëw rek ci présentation bi parce que am na ci solo ndax téléspectateur dañoo war a suñoo xam soxla xar yi fi nekk yëpp waaw bii nag doomu maal bi la moom tamit sëtu jakpat la maal bee ko jur hmm. waaw bee ko jur première édition wu euh, bokk sàmm gagné woon na trophée quoi moom waaw. waaw waaw champion la waaw waaw waaw waaw moom première génnam yàlla def. moom mi ngi euh, nii mi ngi dugg ci 19 euh, mois am. waaw. waaw. macha maamam. waaw waaw nuru na maamam doon waaw sëta koy sax yéen moom xam ngeen loolu quoi yéen xam ngeen loolu yéen. macha allah macha allah xam ngeen loolu baax. mel ni tamit maa ngi seenaat beneen ba léegi beneen xar. Euh, ci xar yu jigéen ñi nga présenté ñu ko rek ñu gën a xamale euh, téléspectateurs yi bokk yi. bi nag euh, kii doomu Fadel la. waaw kii dañ ko juddewul ci gétt gi. moom li ñu lay wax rek élevage dafa war a yaatu. parce que Mali tamit aussi bu ñu amee dayo yi dafa am ñu ñu war a àndal. waaw moo tax boo mu nekk Fadel boo xam ne bokk ci liy defar gétt gi suñu base quoi wax dëgg yàlla li fi jot jur. gis nañ ne moom maal bi daal seen compétition baax na quoi ñoom ñaar. Mhm. déggoo nañ daal waaw ñoom ñaar waaw macha allah déggoo nañ quoi waaw ku fi ñëw moom tamit aussi di nga laaj kii fu mu jógee ndax production bi muy def ak maal bi quoi moom ma maa ngi ko tuddee Miss Pikine. waaw Miss Pikine laa ko tuddee quoi. ah da nga delloo waa njukkal Pikine daal. waaw mais xam nga Pikine moom suñu lépp Pikine la ñun moom buñ sañoon lu ñu am sax Pikine lay tudd xëy na tulu tulu ñoom ma a bañ a niroo yëpp rek moo tax il ñu tànn benn benn rek mais Pikine moom lépp la quoi la ngeen koy delloo waa Pikine. waaw ah, non Pikine la affaire bi yëpp Pikine la du fenn nag <laughs> Pikine la même télévision bi sax Pikine la mooy numéro un ci Pikine waaw kon jeex na. <laughs> macha allah mu mel tamit maa ngi gisaat beneen xar ba léegi eh, ci gétt gi mais am na solo nag xar yi ma fiy gis ni car macha allah dafay wane rek ni affaire yi am na solo. waaw kii sëtu bi la waaw ba tey sëtu maal bi la moom tamit parce que dama dafa am xam xar yi dafa am koo xam ne buñ fa jëmee da ngay am base base bi mooy xar dafa war a nekk xar mu am doole am kattan moo tax ñun dañuy liggéey ci base boobu noonu pour l'instant nii quoi moo tax xar ni nii ñëpp man damay liggéey ci euh, sama jackpot xam naa nag après incha allah gën gën a yaatal nag jéem a uti production yoo xam ne ñoom ñooy àggale liggéey bi quoi waaw élargi ko quoi incha allah ñaataal la toll non kii moom mi ngi ci huit mois mi ngi ci mois waaw mi ngi ci huit mois mi ngi ci nga koy ah, moom de xanaa yow dama ma tuddee ko soxna si rek waaw loolu ah yal maanaa loolu mooy ah bul premier première dame waaw loolu laa ko. ko defee waa waaw première laa ko tuddee waaw jeex na moom sama xarit la ko moom moo gën nekk sama xarit moo tuddee ma tuddee ko première dame waaw. Ah, ñu jàllaat ci présentation bi daa mel ne maa ngi fi seen benn mbote bu am solo xam nga mbote ci jur gi la bokk te xar boo gis a jaar na ci te ndeysaan. Eh, kii moom day sama xarit boo xoolee 200 pour cent jackpot la waaw li ma lay wax rek xar boo ko yoree xam li mu war a liggéey da nga ciy fexe am lu ci am parce que. gene bi moo am solo ci xar quoi voilà xar du question de rëyaay beeg yooyu wala tuutiwaay bi mais gene bi ñun ci la ñu gën a mën a liggéey parce que gis nañ euh, ku mel ne suñu doyen ci kii ñu ñu ñu ci expliqué lu rëy quoi moo tax ñu gën a profité ci ci gene bi quoi waaw. ñaata mois la. actuellement nii amagul 20 jours quoi mi ci ay 15 jours tuuti quoi. ndeysaan waaw. Ah, éleveur nag xooloo éleveur nag bu gisee lii daal di kontaan ndeysaan. waaw waaw gis nga rek fii moom xam nga moom ñun moom ci réew la ñuy dund quoi xar moom. dafa bokk ci suñu biir quoi dafa bokk ci suñu dund quoi waaw gis nga de. macha allah léegi bu ko defee nag taxaw nii gën yaatal comme que def nañ présentation am solo. Mhm. sànq yaa ngi may expliquer maanaam yéen ci euh, gène bi ak mhm. li nga xam di base bi ngeen gën a miisee. noko mhm. noo ko noo ko mën a expliquer suñu mbokku téléspectateur waaw li ñu ko expliquer rek mooy xam nga xar yi parce que ñoo bokk mais dafa am xar boo xamante ne bii ne da nga gis mu nekk xar bu am xar bu gàtt parce que yëpp nyotolo, legi léegi nak bi nag day baax ci xar mi xar dafa war a am doole waaw xar nekkul ci sewaay bi rek nga war a xool wala dara lu ci ëpp solo mooy deret ji waaw gene boobu nag boo ko amee mu wóor mu nekk xar mu dëggu moo tax ñu ciy focaliser wu di ci liggéey liggéey bu am solo quoi waaw parce que loolu day yokk élevage quoi ku liggéey daal na liggéey ci gene gene bi moom macha allah ngi gis nañ ci résultat. sànq tamit maa ngi dégg sa biir wax nga may présenter xar mi naan bi da nga koo recruter maanaam recrutement bi naka lay demee. waaw recrutement bi moom des fois mu yomb des fois du yomb. parce que lu baax moom du du du yomb mais nag aussi ñun ñun yàlla ñoo dimbali bi ñuy dugg ci élevage dañ ci dugg duggin boo xamante ne bii ne lépp dafa yomb ci ñun boo xoolee maal bi ma lay wax nii maa ngi ko jëlee ba Tëngéej te sama grand bi ma ko jox Kaba aussi maa ngi passage mag muy nit ku baax quoi bi ma ñëwee dafa ma yombalal jox ma ñaari doomu jackpot bu góor ak bu jigéen la ma jox na ma dama liggéey boobu ba léegi tamit suñ première génn foire ñu gagné trophée loolu aussi tamit xam nga ne. jàpp nañu te joxuñu ko dara lu tax mu mu jox ñu xar yi loolu aussi tamit euh, lu am solo la ci ci bi waaw. mais tey jii nii nekk ci banlieue bi yor xar est-ce que yomb na ak yan mooy jafe-jafe yi. waaw yomb na yombul quoi xar moom li tax yombul mooy dafa laaj euh, temps dafa laaj temps di leen jege di xam ci li ñuy nekk di dund comme ni ngay dundee ak sa famille ak say soxna ak say doom noonu ngay dundee ak ñoom wala lu ko raw sax ngay dundee ak ñoom. parce que ñee mën nañu wax sax am na lu ma métti ñu wax la ko mais ñii yaay ñaay dugg seen biir di xool ba xam li ngeen ràññee. mu mel ni kon faaw nga jege leen daal. waaw waaw jege bi moom moom quelque soit faaw mu mënul ñàkk quoi jafe-jafe bi nag mooy problème mu dund bi waaw loolu moom lu metti la quoi waaw éleveurs yi ay jàmbaar dëgg lañ. maanaam dund dafa cher. non cher na trop cher na trop waaw ngooñ bi cher na repas bi cher na xam nga li xam daal lépp lu ci jëm rek cher na mais nag jar na ko quoi parce que ñun suñu bëgg-bëgg la moo tax. waaw suñu suñu mais parfois du ngeen am problème mu d' insécurité maanaam fi ngeen denc xar yi affaire yooyu. waaw d' insécurité moom ça dépend ci milieu yi ngay nekk. insécurité moom fépp la am mais aussi tamit euh, boo yoree valeur li nga war a def njëkk a def mooy ut sécurité ba pare. waaw sécurité bu doy parce que tamit ay valeur la macha allah il faut nga ut euh, sécurité bu doy waaw loolu rek mooy problème bi ah amatul beneen problème. Euh, ñu fekk la ci foire bi muy huitième muy 6e édition. tey ban jàngat ngay def ci tolluwaayu foire bi wala foire bi naka la nga ko dundee. non mention spéciale. foire bi moom dëgg yàlla docteur Niang ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax quoi parce que image am rek dafa am leen lu muy jox ci wàllu càmm waxtu mu laaj set bii nii te éleveur boo gis tey bëgg na ñëw bokk ci association bii nii te puis li ma gën a ci association mooy ki ci bokk 50 euh, ans ci ginnaaw ak ki bokk tey ñoom ñoo yemale man dama lay jël exemple ci man. tey ji dem naa ba bokk ci nga xamante ne bii ne tey ji nii dañuy wax di dindi te bi ma ci duggee même pas deux ans xam nga dañuy ñëw ñu xajal la ku bëgg a ñëw bokk ci groupe bi ñëwal transparence bu am solo nag aussi dem mi ngi ci quoi. ma ñëw ci foire bi mu mel ni euh, éleveurs yi dañoo bokk ndey bokk baay maanaam euh, relation ngi seen biir mel na benn ngeen. waaw non càmm mooy demee noonu boo xoolee tey jii nii da bokk ak nit box doo ko doo ngeen jege box du ngeen xamante fi mu toll nii bu ngeen xasee ba duggante rek il faut nga di demalante ci lépp quoi. nit day manqué dara sax ki nga dendal mo la koy jox du xol ba xam yow mi sama ki nga parce que affaire euh adversaire wa amatul ci cham quoi et puis xaju ci motax nak nag. personnel ngeen waaw ah, non la mais c'est normal. niveau bi dafa. non niveau bi il faut mu yegg nak parce que xale yegg mo mooy il faut nit ñi yegg sen niveau quoi pour and ak ñom ngeen mën a sauvegarder sen intérêt. voilà xam nga ñu bokku ñu bokku tet ñoy loxo so goj waye tamit bu ngeen waxtane rek jubóo. c'est ça c'est ça lolu mom euh, amna amna eda Masya allah amna na solo waaw lolu amna solo quoi ki tamit aussi sama sama way la bo gisee moo koy woo nii moo champion bi quoi xalam xalam dembu xalam dembu mo mo moo gagné foire bi xam nga ñu ko ci ndokel bu baax lolu rek ndam la ci ñun quoi den ak nit sax mu gagner ndam la waxtuma la nak mu ñew ubi leppam quoi waaw suñu way la daala mom mo nek mo nek champion bi dembu waaw. ñu koy féliciter mom champion. waaw may champion la xali mu waaw gis nga de. <laughs> <laughs> sama waay nag champion la de. sa digganteeg saa yi. yee kii sama waay la xam nga. xar moo leen boole xar moo leen boole parce rek moo moo ngi mel ay vingt ans la ñu xamante wóor na yàlla lu ma soxla fii suba ba ngoon muy nil ma ko. ñu lay ndokkeel. waaw la victoire bi waaw merci merci merci. sama ku la fi mais dalal lu bëgg suba ba ngoon tànn dem indi ko jox ñu waaw ñu koy ñaanal rek lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ko waaw jaajëf amiin ndeysaan ay euh, Hadj ñu ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ñu tëj euh, waxtaan gi amoon na solo. waaw et puis rek di di leen remercier yéen ah parce que liggéey bi ñu liggéey nii su feeñee grâce à yéen la quoi parce que yéenay bàyyi seen temps ñëw dugg ci biir xar yi di xam li ñuy liggéey métit bi ngeen koy wanee loolu aussi tamit euh, di leen ci gërëm et puis nag ci gërëm caméraman bi nekk sama ginnaaw El Gaye quoi parce que lu yàgg la man ak moom. xar yi boole wuñu quoi dañu lu yàgg la ba xar yi ñëw boolewaat ñu waaw depuis Canada la école neuf xam nga boole saf baar waaw ne secret bi mooy euh, xaar xar moom xaar rek la quoi liggéey xaar waaw parce que lépp mënul sotti tey da ngay liggéey boo liggéey nga jox keneen mu liggéey noonu lay demee quoi moo tax daal xaar daal xaar la daal la tudd sant sant xaar waaw. ñu jaajëfal la bu baax a baax. waaw merci beaucoup merci beaucoup ñu ngi leen gërëm bu baax et puis di gërëm directeur du bi El Hadj sama sama sama nuroo waaye sa doom baay. xam naa après incha allah dinañ ko seet si bu gën a neexee yàlla quoi incha allah merci beaucoup. jërëjëf incha allah merci beaucoup euh, El Hadj Diop euh, moom Elas Diop la tudd ñu fekk fi nga xam ne si moom moo ni bergerie Khalir Moniru Diop euh, mu nekk nag di liggéey bu am solo muy gërëm nag personnelu Ngalam TV yëpp la télévision de toutes les générations comme comme ni mu ko waxee sànq bu jaarale ko suñu directeur bi nga xam si ni yàlla dafa def ñoom ñaar ñu bokk benn tur mu doon ay nuroowaale ñu ngi lay xaar Ngalam TV pour nga ñëw waxtaan ak ñun ci wàllum bergerie waaye tamit wàllum élevage ndaxte am na ci solo mbokku téléspectateurs yeeg internautes yi tey lii lañ leen indiloon fi nga xam moom moo di bergerie Khalil Moniru Diop bi nga xam si ne benn la ci bergerie yi waaye dama ne la képp ku nga xam si ni aussi war nga bëgg a moom rek da koy woo ci numéro téléphone yooyu di affiché ci barre d'écran bi bu ko defee nga daal di koy fekk ci Pikine ngeen waxtaan waaye tamit mu échange ak yow ci xam si moom lay def ci élevage jërë ngeen jëf mbokk yi